bokk yi ñuy déglu te dañu seetaan noo ngi am mbégte di ànd ak yéen ci jataay bii nga xam ne moom lañu ñu duppee yoor yooru safar yoor yooru safar nag bokk yi ñu tànn ci di ci waxtaane taawi yoon wi yaakaar naa ne benn fanu safar ba nëgë yéen a ngi ñu topp ci taaw yi nga xam ne ñoo seeni wayjur ñoo daje woon ci ku tedd ki Seexuna Ahmadul Xadim tey jii nag ñu tàbbi ci ëtt boo xamante ne bii moo di ëttub sëriñ Isaa Jenn fas yéene tàbbi ci neeg sëriñ Mouhamadou Lamine Jenn ñu gën koo mën ci sëriñ Baara Jenn mii taawub sëriñ Issa ñu fekk si yéene ànd ak sëtam bu mag bi nga xam ne moo di sëriñ Sidi moom sëriñ Naar moom sëñ Baara moom sëñ Issa ñu àndandoo nag ak yéen di leen nuyu nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo boobu ki yàlla teg ci bopp yoonu murit di cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal yàlla sunu borom gën ko fee yàggal lool te gën a dolli ak wéram. di nuyu ak ziar nag xalifab sëriñ euh, Issa Diène waaye di nuyu ziar it nag xalifab sëriñ Baara Diène di sëriñ Souhaïbou Diène di ziare mbooleem njabootuk sëriñ Baara Diène gépp nag di jagleel ab ziar nag sëriñ Sidi Naar mi nga xam ne moom lañ toog ci wetam te muy sët bu mag ci njabootuk sëriñ Baara Diène way juram di ki njëkk a wuutu Cheikh Mahamadou Lamine Diène di sëriñ Baara ñu jaajëfal bu baax a baax njabootu sëñ daam Abdourahmane Lo ci waxtaan wo am solo wi nga xam ne def nañ ko ci sëriñ Mouhamadou Lo mi nga xam ne moo jëkk a wuutu sëriñ euh, Abdourahmane Lo ñu fas yéene ànd ak sëriñ bi rek xanaa di ko bàyyee ak kàddu mu nuyoo ak bokk yi su nuyoo ak moom ba noppi nag ñu daal di fas yéene seq nag ay laaj ak ay tontu ci ki nga xam ne moo di taaw sëriñ Issa Diène di sëriñ Bara jenn barke sëriñ Ngagne Diène barke Cheikh Issa Diène barke Touba. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw suñ fàllu li nga laaj muy kan mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Diène Cheikh Mouhamadou Lamine Diène mooy doom bu mag Cheikh Issa Diène mooy taawam mi ngi gane àdduna at mi Sëriñ Tuubaa demee ci géej gi ba ci déwén si ci tàggaar ci dëkk bi ni wax njànnara ci digg Kajoor at moom la feeñ ci la gane àdduna bi mu demee ba matadal jàng waajuram mi ngi ko joxe ci dëkk bu tudd Daaru Géey nekk ci dëkki tàggaar yi Daaru Géey googu sax li ci indi géej ji ña fa dëkk Fall lañ sant waaye dafa am kaang mu fa nekkan mu tudd Sëriñ Abdu Géey manoon alxuraan loo doon fa jàngale alxuraan moom moomu nag la ko Cheikh Issa joxoon moo ko dalal alxuraan fa la doon jànge ba ni ko fa Cheikh Issa jëlsee yóbbu ko yët ko Serigne Touba ngir mu dem tërbiyewu ji. jërëjëf kon day mel ne rek laaj bu njëkk bi daal dinay far leeral sax lu bari moo di eh, Cheikh Mouhamadou Lamine Diène eh, kon atum 1896 la gane jamono ndax sëriñ baa ngi dem ci géej gi 1895 kon day tegtale ne ci ci mag ñi la bokk ci mag ñi la bokk. yàlla dogal it njàngum alxuraanam doomi soxna yëpp fi leen fi ñu baaxoo jàng ndax boo delluwaatee ci sëñ Isaa xam ngeen ne eh, ci eh, ku teel a man alxuraan la way juróom itam doon ku teel a man alxuraan te sun borom subhaanahu wa taala itam teel koo eh, yee ci mbirum Sëriñ Tuubaa waaye bëggoon nañoo xam itam Cheikh Mouhamadou Lamine mii nga xamante ne bii wàllu njàngum alxuraanam ci dëkk boobu nga xam ne Daaru Gay fa la ko jànge Eh, wàllu njàngum xam-xamam ndax lépp ñoo bokk fu ñu ko jànge wala daa mokkal alxuraan ak sëriñ ko wala daa jàng alxuraan jàng xam-xam sëriñ bi su koo laaj. moom man mooma nit ci làmmiñam waaw ne bi mu jàngee alxuraan bi mu wàccee ba toll ci di ñàcc la Cheikh Issa dikk jël ko jët ko sëriñ Touba ni ko Mouhamadou Lamine mii kat moo di sama taaw da doon alxuraan waaye léegi damaa ko faa jëlee indi ko bëgg mu tër bi yow nee na bi Cheikh saa waxee sëñ bi sëñ bi li ma jëkk jëkk a wax dama ni Mouhamadou Lamine kon noo def ak téere bi yàlla bi alxuraanu karim ni ma ko ci fi ma toll ne mu ni ma def na la jox njariñul alxuraan wala fi ngay nëf na fi ciy téere ko ni ko doxal jàngiwaat waxul loolu ne da koy def na la jox njariñul alxuraan wala fi ngay nëf na fi ciy téere dal di koy wax ni ko nag waaw loolu sa bàyyi wax nag nii daa bëgg nga dem si daal di tërbiyewu ji ndax man nga ko ne fa la fekk bàyyam bu ñuy wax sëriñ Mor Kumba Kan ne moo ko ni da nga koy wax ni ko boo ma dimbalee mu ni ko boo ma dimbalee dama ne ko amiti na de ndax dangay xëy di liggéey suba jant bi so doo lekk doo naan ba ngoone nga yalwaani nee na mu ne ko mën naa ko ne Sëriñ Tuubaa da wax ci làmmiñu boppam ni xiisa kon ma xamal leen tër bi nan la mel ak jàngal xuraan nan lañ demee li ko mel na xëy murid tërbiya mu ñu nangu moo ëpp doole jàngal xuraan ren ba déwén boo fabee am nen teg ci taatu ron gu mat na ron gu sutee nen ba noonu la jàngal xuraan ëppee doole noonu la tërbiya ëppee doole jàngal xuraan na dal di ko ni kon nag nañ ko boole jëriñ mu liggéeyloo ko nañ dal di may boole ko ñuy wax sëñ Ahmadou Daam Surang ne ma nekk fa di liggéey sëñ sëñ saa damay boole yóbbu ma fa ne dal di wax ña ma fekk ñu leen bu kenn kat doomi Cheikh Issa Sëriñ Tuubaa ko digal mu liggéey bu ko kenn bayal dooñ bu ko kenn baylaw dooñ bu ko kenn yenn sayu matt bu ko kenn yenn paanu ndox mu ne yàlla dimbali na ñaa fa fekk ñëpp lañ doon def kenn daquma ko ci ne ba ma fa nekkee ba nekk fan mat ñeenti at Sëriñ Tuubaa wax Cheikh ni ko Mouhamadou Lamine nañ ko delloosi dañ ma ko yët nee na kere bi may dem Baye moor juug Baye moor Diouk ñu bari xam nañu ko ci kër gi di daa ko fa Baye Diouk àndooy sëñ Baara te mag sëñ Baara tuuti bariwul nag ci mag ñi àndandoo Cheikh Issa la ne moom ma Cheikh Issa booleel ñoo si njëriñ bi njariñ njëriñ bi ñëwee ba ma jub sëñ bi gis naa ni sëriñ bi muuñ na ba ma gis leen ci ay bëñam nee ma ne Mouhamadou Lamine Diagne ñëw nga ma ne ko waaw da Mbàkke ne mag si nuyoo ne man ma topp sil ne ma ba jéggi man ma topp sil ne ma ñëw ba sës samay wóom di ko laal ne mu di jël ñaar loxoom teg ci sama bopp di ñaan di tifli di ñaan di tifli di ñaan di tifli mu yàgg lool mu ne ma Lamin seere na yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la man Sëriñ Tuubaa gërëm na la gërëm naa la sa baay gërëm na la te ci wàllu yu mag yàlla bokk yenti ngërëm yii du ngeen tàggoo mukk boobu ba ngay dugg na moom kay kay noo illaa doxul jannati warlu naa la it koo gërëm mel na ni maa ko gërëm loolu moo di tërbiyaam bi mu defee loolu ba noppi nag ne ci la ma laaj nag ni ma waaw ndax bëgg nga ngir sampal ko kër nag dal dugg ci loolu nag ni ko ndax ndax bëgg nga maree ma faal doom yi ba dafa neen boobu xuma maree ma faal mooy maam soo mi waaye jur sëñ naar nee ma ne ko mbàkke man koo bëgg rek laa bëgg nee ma ne ma kon baax na nee na moom dal di woolu Cheikh Ibra wax ko ko ni ko Mariama Fall moom mi kët dama ko bëgg a jox Modou Lamine doomi Xiisa nee Cheikh la ni ko man di Mbàkke mosu wax lu ma neexe noonu sama doom nga jël ko doo jox doomi Mouhamadou Lamine nga doomi jox ko doomi Xiisa sama rakk ju baax ji loolu neex na ma loolu ne bi mu woo Cheikh Issa wax ko looloo lu mel ne la ko Cheikh tontu rek ne ko nga jël doomi Cheikh Ibra sama mag ju baax ji jox sama doom loolu neex noonu Mbàkke mosu wax lu ma neexe noonu nee ñu tegtal ma juróom-ñaari weer nag sëriñ bi soog koo suttal ak am nag loolu la mooy noonu noonu la loolu la fii la yeme ci gudd gàtt li ma wax ci taarix taarix la say dëgg bariwut loolu noonu rek la toll. la cay desaat nag mooy bi mu nekkee njëriñ nga yi day ne ci kër sëñ bi nekkee ne ci kër waajuram di dem fi kër sëñ bi di fa defi liggéeyaat di ñëw ci kër baayam ne benn bis nag jant bi waaja su fekk maa ngi ci kër gi di buub di war fut lu ma for moo gisee xob wala lool fi waram nee ma jël ko ba timis si jot ne sëñ bi romb ma ne ma kooku Mouhamadou ma ne ko waaw man ma looy def ma ne ko damay buub ne mun na loo si jublu ma ne ko bañ a toog rek Mbàkke nee na ba nu am ab diir mu ngàbbu làmpi photophore yooyu xam nga jant baa ngi sa booba ne dikk di ma ko jox fekk ma taal ab sondeel di ko di ko nit yi def li may def liggéey li may def mun mm-hmm. naa danga am loo taala mën ko am mbakk mën naa ah kon de baax na waaye wut séef yi bopp moo gën a wóor mm-hmm. Mm-hmm. ne bi ba ginnaaw bi ne jan ni ma woolu ma ne bi ma woolu bi ma ñëwee laa fekk uh, Cheikh Issa ci jotaay bi fi laa fekk Cheikh Ibra ak ñeneen waaye bariwuñu waaye ñoo jot jot tudd mooy attaay ji ko sëñ Tuubaa attaay la nee na sëriñ bi ci boppam moo jël li ñuy wax ak njëm di ak njëm di mooy weñ googu nga xaay da daa dijj ñu defar ko mel ni li wala fi ay ngiminti li ni ko wala fi jàngee noonu lay bindoo am cat lu gudd mu samp ko ne bu nga sampee jël sasa gi wékk ci jël matum jalambaan def ci jël curaayu limaan teg ci taalal ko boppam ne sëñ bi defal boppam lépp kenn laalut ne ba mu tàng mu teg bara mu jël sasala gi def warga wi def ci ndox mi upp tàngal mu tàng mu di ko suukar di ko suukar di ko suukar ba ma yaakaar ne bu ko yëkkatee day day jàppaloo ne mu xeleb kaas jox ma ne ma Mouhamadou Lamine ma ni ma ni ma ni ma ni Mbacke mu ne am naa na yow mi di am murit am naa na murit waaw ne fekk na booba Cheikh saa ngi toog ak Cheikh ra ne mu toogee ab diir xel ñaari kaas jox benn bi eh, Cheikh ra jox benn bi Cheikh Issa ne Cheikh Ibra naanab kaasam def ko ci poosam Cheikh Issa naanab kaasam def ko ci poosam ne sëñ bi ni ko waa sëñ bi ne Issa bu ngeen defee nii ci may xelli warga wi man kat moom kat bàkk Ibra Faal mi di sama bëggum tawlu bi moo naan kaas mi def ci poosam mayit ma def def ni moom ne mun tegaat leen ci kaas yi nee nañu dal di jël kaas ya tegaat ca ne mu ne leen attay ji li ma li ma leen ci fàggul li ma leen ci fàggul bu ngeen wutoon dàlli weñ ak mbubbi weñ di ko liggéey ba mu xarit mun leen ko mun taxul taxul taxul ngeen mën koo am loolu mooy attaye jooji loolu waral lan bis mu ñëw di siyaare sëñ Fallu fii ci Touba. ñu ñëw ba fii ci gis gi ñu ni ko ma a ndindi ba sëñ baar demee kere sëñ Modou affiche Mbàkke moo ko ni sëñ bi da ñaari fan yi sax dafa dafa mel ni ko tëju waaye nag yow ginnaaw ñëw nga xam ne dana tijji gis ko mu dana mu tijji sëñ baar dem nuyoo ak moom mu nuyoo ak moom joxe addiyaam ak siyaaram tàllal koy loxoom ni ko nag kon nga ñaanal Mbàkke ma dellu sëñ Fallou ni ko ñaanal sëñ baar ni ko ah, Mbàkke man nu ma lay ñaanale mu ne ko waa ji Cheikh Ahmad Lamine yow li ñëpp wut nga xay koo seen kone moo ko tax di dang-dangi yow da nga ci am lu wóor kenn ku ne ku koo gis ku ne bëgg doon taalibe nga doon murit bu Sëriñ Tuubaa nangu taalibe moo ko tax di daw ak guddeeg yow Sëriñ Tuubaa la tàngale attaay ci loxol boppam xel ak kaas jox ni la am naa ne yow muy murit kon nag ñaanal kon ak tërbiyaam ak diggam ak sëñ bi la ci gën a bari la ci gën a am solo mooy lii lii nag moom ko nettali ci làmmiñu boppam bisub àllarba ginnaaw bu jant bi soo weeru koor ñu ndog ba noppi sama bàyyi ànd ak man nu jógee lan saar nu dem daara si di fekk ko fa kere la ma koy jébbal ni ko damaa bëgg mu dem tërbiyewu ji kere la ma njëkk a nittali lii ginnaaw beet ma ne ci daara ji su ma ñëwee ci moom ak wéet fekk fa sama maam ñu daa ma kuus ma daa fa moom dama koy nettaliwaat ma xam ne xam naa ne dama koy jubloo ñaaxee ngir bëgg ma góor góorlu waaye maanaam nittali ko nii sax yomb ko woon bari na tey koo dégg mu nittali koot bu niwul ci man la ko déggeet ci man la ko déggee. li ma la wax ci tërbiya géet ni la Serigne Touba moo ko wax ne moo wax Cheikh Issa ni ko mel na xëy murid tërbiya mëpp doole jàng bu ñu nangu mëpp doole jàng alxuraan alxuraan ni déwén loolu Cheikh Issa la ko Serigne Touba wax ne xam nga léegi da ngay nettali ko wax ni sëñ Ba da ko wax Cheikh bi ko sëñ Touba yow boo fàttali ko waxtaan mo sa maa yow ëpp na fukki at ak juróom léegi maa mat na ko ca laa ko jëkk nit ñu bari la ñu li ñuy déggaat dañuy wax ji nag di ko sotox di ko waat di waxee waat neneen waaye nii la demee loolu bi sëñ Baara yóbboo Cheikh Issa ci sëriñ Cheikh Issa yóbboo sëriñ Baara ci sëriñ Touba muy tër bi la sëriñ Touba wax loolu Cheikh Issa ci ak tër bi loolu nag maa ngi ciy jéggulu ci leeral gi ma koy leeral ci ñi nga xay dañoo umpali sëñ bi tuuti alxuraan lu màgg la sëriñ tubaa moom moo wax ni yàlla moo ko ko moomale waxin ni dara lu gën jàngal alxuraan amut. waaye tërbiyeeg ji liggéeyal sëriñ Tuubaa gii nga xam yaa yaa liggéeyal sëriñ bi mu gërëm la li nga ci mën a amee ci yëg ci yàlla amul leneen loo ko mën a amee lu gën a gaawe noonu lu gaawe noonu firnde ma jox xam nga di nga gis nit ku am juróom-yaari at dal di jàngal xuraan ba am fukki at ak ñeent wala fukki ak juróom di ko jàng di ko jàng di ko jàng ba làq juróom-ñett fukki waxuma la xam am benn xam-xam ci lawhul mahfuus wala mu xam dara sekkale yàlla yi waaye ay géntam sax taxu man koo lijjanti waaye Sëriñ Tuubaa moom nga ñëw fi moom jëbal ko sa bopp mu liggéey loola ren déwén ñaari at ñetti at ngay gàggantu si lawul wul ma foos ci loolu ci nga ko mën a kon nag moo tax yëmul ak dara boo ko dee wax nit ñi nag ñi bokkoo ko atte ci aw jàng bëgg ko atte wu ci aw jàng du suti waaye sëñ mooy loo mooy koo xam ni li ko yàlla may da ko mayul kenn li ko yàlla defal da ko defalul kenn lim manit kenn mënu ko hmm? ndax Moussa dégg ku Moussa yi ko wax ne yàlla moom la ma moom la ma alxuraan moom gi ko moom moo tax mu sañ wax sëñ baara ne ko def na da jox njariñ njariñul alxuraan wala fu ngeen def ne ci téere hmm. maa ngi si woyu ko sëñ Mat Jaw Paxa woy maa ngi koy wax loolu di ko uh, wax ni ko maa ngi lay ñaanal yow sëñ Mouhamadou Lamine Diène hmm? na nga mel ni eh, nga mel ni alxuraan ci barkeb alxuraan nga xay la ma xam jooju ñaanam googu day dëppoog li ko sëñ bi li ko sëñ bi waxoon waaw waaw loolu daal ci ci ci ci gàttal moo di ak diggam ak sëñ bi ak gane jamonoom am njàngam interview am lii la waaw jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñoo ngi ñuy topp ba tey ñu ànd wéeg yéen rek ci jataay bi nga xam ne moo di yoor yoru safar ñuy waxtaane taawi yoon wi tey jii ñu dalal sëriñ Sidi moom sëñ Naar Jenn ñuy waxtaanee Cheikh Mouhamadou Lamine Jenn moom sëñ muy sëñ Baara ginnaaw diggam ak sëriñ tubaa dégg nañ li fi dox ci ay tawfeex ak i xaas waaye nag ak tërbiya gu métti goo xamante ne bii sëriñ Touba moo ko waxal boppam ci ne ko Mouhamadou Lamine tërbiya métti na ndax da ngay yendoo liggéey ba ngoon jot te doo lu te boo wàccee da nga yelwaani yaakaar naa loolu Eh, gis nañ ne mooy tarbiya dëgg dëgg dëgg ñaareel bi it bokk na ci tawfeex ji gën a rëy li ñëpp bëgg a doon mu doon mu doon ab murit Sëriñ Tuubaa moo ko seereel na ko ataay ji naan ko yow mi di murit nga xam ne ne moom murit la ñaareel bi itam saadix mooy ku am ngërëmul yàlla Sëriñ Tuubaa bi muy wut ngër yàlla eh, loo ko bëgg a wan lu dut la lastu amilu li siwa maa yor di rabbu samawati wa rabbul arsi kon ngërëmul yàlla la doon wut Sëriñ Tuubaa moo wax Cheikh Mouhamadou Lamine jenn na ko gërëm naa la yàlla gërëm na la gërëm naa la yonent bi gërëm na la sa baay Isaa gërëm na la te ci góor yàlla yu mag yi la bokk ci wàlli yu mag yi la bokk kon ci yooyu yenti ngërëm it dootoo tàggoog moom ba ilaa du xoolil janna kon yaakaar naa ne loolu la nit ñi doon wut moom sëñ Tuubaa ko gërëmal boppam beneen bi ci topp ñu sëñ Tuubaa ko seereel ak muritam kon lim doon wut lépp mënoon nañ ne am na ko foofu eh, bëggoon nañoo xam bi sëriñ bi demee ñibbi see Tuubaa nag nga xam ne sëriñ Isaa ngi fii sëriñ sëñ Baara naka la taxawee ci ci kanam way juram ak yan taxawaay la fa amoon. waaw kay moom nag bi nga xam ne Serigne Touba eh, tërbiyewu na ko ba ba noppi jaar ak moom foofu sëriñ bi ci bopp moom moo yëkk moo ko yëkkatiwaat jëbbalaat ko Cheikh Issa nag ni ni ko téye ko dégg nga moo tax bi fi bi fi bi fi bi fi bi fi eh, Serigne Touba jógeet moom fekk na Cheikh Issa mooy sëriñam waaw moo ko jëbal ni ko ni ko téye ko bi nga xamee ne yàlla dogal na it sëñ bi jóge fi xam nga mag ñu ci bari ñoom seen taw dañu leen séddale ñii dem ci sëñ Fallu ñii sëñ Cheikh ñii dem sëñ Baara Mbacke ñii dem ci sëñ Bassirou waaye moom dañuy Mouhamadou Lamine moom man dama ko jox kenn ndax sëñ moom moom moom ne woon téye ko ndax ku ma ko jox dafay lang waaw ku ma ko jox dafay lang te man damaa bëgg waxtu man waxtu man nekkee nekk jamono sama njaboot gi ma fi bàyyi ku fi nekkal Serigne Touba ñu nekkal la te ku ma ko jox mu lank fa ndax dañuy wax ni fii la ñu Cheikh saa bàyyi woon loolu ñu leen te damaa bëgg wax waxtu ma noppee gis ku fi nekkal Serigne Touba rek ñu nekkal la loolu nag moom ku ñaw la yàlla dimbali na ko loolee mu bëggan ba nag loolooy dox kenn koo xay xalif soo laa di mu doonu sa sëriñ ci njenn gii ci ci ñi fi ne ñëpp. ku fi nekk Sëñ Tuubaa yaa nu yilif liggéey yi nga xam ne liggéey liggéey na Cheikh Issa liggéeyal na ko fi Sëriñ Tuubaa ginnaaw bi it si bari moom moo ko doon jiite waaw bi ñu tàmbali jumaa ji moom Cheikh Issa moo dikkal boppam waaye carrière bu njëkk ba nga xam ne maam Thierno ñëw na sëñ Falloog sëñ Massamba doonoon jëwriñ ji sëñ Baara la boole kook ay rakkam ak mbooloo mi ñëw nga xam ne eh, ñeenti fan lañ fi def mooy leetar boobu yow gis nga ko dama ko tàyyee gën day guddul waxtaan wi sëñ ma sàmba ak sëñ Fallu bi ñu toll ci wër liggéey bi di wàcce bi ñëwee bëgg si fi moom wàcce sëñ baara leetar ba sëñ sàmba bind daf caa wax seexe saa ni ko sa doom ju ñu barke ju barkeel ji ju gërëm ju ñu wóolu ji Mouhamadou Lamine ak ñaari rakkam yi Basiir ak Ibrahima mooy sëñ Basiir jennum xay ak sëñ Bakki jennum niis ki seexe saa ak sëñ ak sëñ Daam ñëw nañu ànd ak mbooloo mu bari ci barab doj bi muy carrière bi ñeenti fan lañ fi def waaye liggéey nañ fi liggéey ñeenti weer mboolem ñu leen fi jiitu kenn def fi liñ fi def seen ginnaaw it kenn def fi lu tane liñ fi def te yàquñu fi dara laaluñu fi dara carrière boobu sëñ Baara moo ko jiite woon. cembul tey fi la la Cheikh Cheikh Moustapha euh, santoon Cheikh Issa loola sëñ Baara moo ko jiite. man sama waajur sëriñ naar nee na ma dem naa ca ca cemb la ne bind naa ngar yeneen toll ak saqee ne këy du sax damaa réer ndax ne bañ ci jógee ci guddi ba ñëwee sam sëñ baa damay dama leeral sama kon na liggéey ba demee maa dem wax ko na cemb la demee lépp damay bañ a dugg di di di bañ a yaatal waaw moo moo ko leeral Cheikh Issa bañ ca jógee ni ko sëñ baa ni ko demal yow leeral sama am kon liggéey ba demee ginnaaw jeex na lam nu yónnoon tey mu cembul sëñ Moussa Cheikh Moussa loolee biñ jógee ci looloot yi nga xam ne moo ko fi def ci ginnaaw ci ginnaaw mm, Cheikh xam nga Cheikh bi mag ñi bi mag ñi waa Barsaq yi bi nekkee njëriñ tey bari na ko ci waxte waaye moo leen yoroon hmm. magasin ba mu defan kër sëñ Mor Ñang nga xam ne dund ren ba déwén la cay def ñu bari xam nañ ba man njëriñ tey li ma tax boo ko laaj ñu wax la ko par ay bis la ñuy natt la ñuy la ñuy lekk ren ba euh, weer ci ay bis googu bu jeexee nattaat ko jox leen. den leen jox ak xarit tabaski di leen war no diiru ñaar fukki at fi Cheikh Issa nekk ginnaaw Sëñ Tuubaa loolu nekkee ñoom bi fi jógee Sëñ Bara daa wéyal liggéey boobu ñoom ñëpp sax am na ci ñoo xay def ku ne weeru dee mu yónnee la bëri nekk ak ak i teraanga yooyu sax xam naa ci mën mën jël mënees koo leeral barab bi Sëriñ Tuubaa liggéey fa njaari mi nga xay Cheikh Issa moo ko liggéey bi mu demee ba mata yeesalaat booba jamono Sëñ Fallu ak Sëriñ Basiiru bi ko Sëriñ Basiiru waxee Sëñ Bara Sëñ Bara moo ko yeesal booba tiwil mi dina tiwil tiwil ya dale ko dégg nga boole koog nag ñi ma addiya lool am na ci taalibe yi sax ñoo xay boo tul seenu ñàkk xam addiya ñi meeg sëñ baar addiya moo leen ko yóbbi ndax boobu li mu yor si takk der bari nañu booba mbay day nangu te lu ñu bay àllarba yi ko comme lu ëpp ñaar téeméeri àllarba lu ñu bay lépp mu dajoo ko benn joxeendoo ko bu ko dee du sonal kenn ci lenn bu ko dee nag loolu ko toppaloon sax da nga ne ma doon joxe di ndax maanaam du la sonal du la ko wax booba noon noonu la ko daa defee moom dana ko dana ko am xarit tabaski noonu la ko doon defee xam nga leeral naa la ne bi sëñ Fallu bi mu Seex saa jógee lay soo ko jëbali ci sëñ Fallu parce Fallu ñetti at ñu jëbali ci at mu jëkk ma xar yam ko jëkk jox ci xarit tabaski ñeent fukki xar la waaw sëñ Fallu da ko wax ne ko yéen fukki ruu yu àndandoo benn yoon yaa mu ko jëkk a jox hmm. noonu la nekkee woon it noonu la nekkee woon it carrière dandaa dem carrière nun ginnaaw Cheikh dandaa dem carrière léegi ñu ñoo ko lu wax rek waaye gisuñu bokki Baye Fall yii noonu laa daje carrière ci jumaa ji ñuy gas ñuy gas fee ñuy gas fii lu bokk la carrière bu njëkk bii ma la wax jamono sëñ Fallu lu ko sëñ Fallu mu saa sasit matal na ko ba ba teg mu nekkee Sèye Bilaay dit Cheikh noonu la nekkee woon ak moom daa mel ne daa gën a fidil sax ak laxasaayam ndax maa ngi fàttaliku benn bis ñun bu ñu jógee daaree njàngaan man ak ak ak Basiirou sama rak ak son yi boog ñeneen ak ñeneen sëñ Baare boole leen ba ñu fukk mu def leen ci benn oto benn sësi lomba yët ko sëñ Blaat Darou Salaam ni ko nii ñii nañ la tër bi yow mel na man rek maa fa des man sëñ bi indi ma fii sëñ Dame Sourang may jàng xam-xam ñëpp leen sëñ sëñ Blaat benn ba nit ñëwee ci armée lu yees yi tey nga xam mooy bàq ya sëñ Blaat ci jamono yooya bi ma woo sëñ Baara da ko ni damaa jàppoon sama xel séddale ko juróomi kilifa ko ne ma la defal lii defal lii defal lii waaye ginnaaw bi ma xalaat ne yow man am naa ko koo man yow yow mel yow mën nga lépp kon yow la ma sëriñ Tuubaa digal nga liggéey armeel yi mooy armeel yi bàq yi xam nga sëñ Baara moo ko liggéey teg nañ xeer wa mu liggéey ko ba ba ba ba ba miir bi egg ba ñu tàmbali jàkka ji biñ tolloo ci xubab jàkka ji foofu la wàccib liggéey sëñ naar sa koy eggale nag eggale jàkka ji defar morbo yi ñu pentur ko jëbal sëñ laat teeb yi kere bi ñu koy jëbal sëñ laat moom armée li bàq yi sëñ ba sëñ laat moo wax sëñ naar ni ko liggéeyub sëñ baare de waxuma li yéen ñi bokk ci moom waaye ku ko yaakaar ko ne xañ nga ci te du jeex mm-hmm. wax ko ni ko seen liggéey boobu it waxuma la yéen ñi ko doon liggéey mën armée yi bàq yi waxuma la yéen ñi ko doon liggéey waaye ko fa jaar sax te bokkul ci yéen def ci daraam mbiram dana ci yéwéne àdduna ak àllaaxira kon armée yi bàq yi la gib sëñ Baara jenn hmm? barab Cheikh Issa moo ko liggéey ginnaaw Cheikh Issa yee ci xew yëpp ci liggéey ba ci kéemaane ki biir baatin waxaan naan duma ko waxee woon waaye xajul ci yi moom hmm? dafa mel ni dégg naa ndénkaan loo fi mas di nettali wax ne Cheikh Ibra Fall sëñ Baara mas na koo seeti mu mu moom Cheikh Ibra mu wax sëñ Baara na ko ndax Mouhamadou Lamine doo ma laaj la ma laajoon sëñ Touba demee na loolu njariñ da cee nekk lu bari loo xam ne bëggoon naa ñu dellusiwaat ci. waaw sa na wax nga ni. ma ne dafa mel ne sëñ Baara. mas naa dem Cheikh Ibra Cheikh Ibra di ko wax naan ko Mouhamadou Lamine de laajoon naa sëñ Touba juróomi laaj ndax doo ma laaj laaj yooyu. waaw waaw ne loolu lu gudd la. waaye mën na maa jukki rek juróomi laaj yooyu. nee na boobu Louga laa xëyee. waaw wàcc ndaan ndànd ci yemonoy yoor yoor bu xaw a dang xam nga booba Cheikh bi daa ngi dëkkee ci bëj saalum Cheikh saa dëkkee bëj gànnaar lu mat kilomètre boo ko deesee diggante mat na ko wala mat kilomètre ak nangam ne ba demee ba ñibbi euh, kër sama waajur kër Cheikh Issa mais damay jaar sama bàyyi Cheikh Ibra siyaare ko nee nag Cheikh Ibra damaa bëggan lool léegi su ma mosaa ñëw fi moom su ma fekkee mu tëjoo day dal tijji lu mu xat-xat yi ma yëgee damay dal di woo ne daf ma daa wax nag yow yow di sama taaw xam naa loolu mi ngi koy teg ci li Cheikh Issa naag sama mag ju baax ji mën naa Cheikh Issa sama rakk ju baax ji waaw ne bi nag damay jukki rek loolu waaye lu gudd la de nee na bi may waxtaan ak moom ne mu ne ma waaw mu la muy jenn ma ne ko jenn mu ne ma jébalu sëñ Tuubaa ndax juróomi laaj yi ma ko laaj mos nga koo dégg mos nga koo dégg ma ne ko dégg dafa waaye bi mu jëbalu Sëriñ Tuubaa gi du bi ci bis bi mu nee na da ko ne bi ma jébbaloo ba teg ci fanweeri fan ak benn muy weer ak benn pan nee ndax bi ma jébbaloo xam nga yam defanteeg sëñ bi yooyu mun maa tudd yëpp ndax loolu waxtaan bi taxunoo jóg léegi ma laaj laay leeral rek nee na bi loolu amee ne sëñ bi daa jël ab gopp jox Cheikh Adama Guèye ne ko Ibrahima mu yóbbu ko ci xuróo mu liggéey ba ñu woo ko ne maa nag Cheikh Adama ne ba ci xuróo mu jox ma gopp ba mais sëñ bi ne fii la digal nga ne ma ne fa di liggéey di liggéey di xapp di bay di gor bu ngoonee ma wuti lu ma lekk mu xëyatee dalaat gi dëggaatuma sëñ bi sëñ bi gisaatuma ba ba am fa fanweeri fan ak benn ne sëriñ Tuubaa soo ko wax Cheikh Adama gi ni ko demal woy nee na sëriñ Tuubaa Cheikh Adama di ko woo si ne ma kaay wuy sëñ bi nee ma ne ko boobee ma dikkaati nag sëñ bi juróomi laaj yaa ko laajan mooy juróomi laaj ngay wax ndax mos nga ko dégg sëñ baa de ma ne ko déedéet nee mu ne ma dama ko laaj ne ko waaw euh, sëñ Bamba nu ñu dëkkee sab sëriñ nee mu ne boo amul loo ko jox bu la woowu bu fa dem waaw mu ne ko waaw nu ñu toogee sab sëriñ mu ne ko mel ni ko julli xam nga boo jullee bay taayee ni nga sukkee mooy ni mu di def ba léegi rek waaw mu ne ko waaw bu la sab sëriñ nee dama wuti nangam andi mu ne ma nara jaral dem ba soobu ji géej waaye bu dikk ni ko ëw ma mu ne ko waaw tëll bi joxe addiya nu muy def mun ko mel ne daay gu na eh, daay gu jaar ci màngu noor du fa bàyyi dara du fa bàyyi da yóbbu lépp ne mun ko tërbiyewu nag ne mun ko fanweeri at sëñ baar ne Cheikh moom mooma ni man ko sëñ Bamba wàññil na ko ne mun na fukki ñaar fukki at ne mun ko sëñ Bamba wàññil na ko mun na fukki at ak waaye man nag ñeenti at laa fi am sëñ bi gërëm ma xam nga léegi nag léegi nga dégg ko wax ni Cheikh Ibrahima ñeenteelu tërbiyewu léegi di wax ñetteelu tërbiyewu ko dégg ñaari la tërbiyewu sëñ baar ne dama ni ñeenti at laa fi am sëñ bi gërëm ñeenti at yi ne sëñ bi da koo séddale ñaari at yu jëkk yi laa doon goraka bayaka taxanaka def yëf yi liggéey yooyu yi yi nag yeneen li yeneen lii te sëñ bi laa nekkan ne boobu sëñ bi am na ay nag sax te bëri wut man maay rat nag yi maay faat soow mi sëñ baa ne Cheikh Ibrahima si loolu ci la même kon léeg ma dégg ko wax ne acteur bi Darou Salaam la tàmbalee man damay jaaxal ak Darou Salaam Mbàkke Mbàkke Mbàkke Kajoor la tàmbalee ca Cheikh Ibrahima noo bi mu dellusiwaatee nii ba mu weer ak weer ak fukki fan ak ba muy delluwaat fukk ànd naa moom ca la muy def ca tërbiya ga fukk xam nga damaa bañ a xoosal bu bu ëpp ëpp ndax loolu taxunoo jóg ndax nee bi may ñëwee sëñ Baara ne Cheikh Ramane ma dikkee fukk ak ñaar laa fekk xam nga dañoo wax ne mooy ñun fukkeelu taalibe yi loolu lu a nekk la waaye nekkul ni ko jëbbalu da ngaa toog ñëpp dañ jëbbalu dem waaw nee na nag fukk ak ñaar laa fekk ne fukk ak ñaar yooyu nag ne ma ne leen damaa bëgg ku mun la def ne man na nga abal ma mooy ñun ñëpp naan liggéeyal sëñ bi ne fukk ya nangu ñaaree gàntu dem fukk yooyee moo Cheikh la ñoo ànd ak tërbiya fa Mbàkke Kajoor ñoo ne Darou Salaam Darou Salaam tàmbali tàmbali tërbiya man loolu jaaxal na ma lii ma lay wax nii sëñ Ba ne Cheikh bi daa ko si lamiñam ñooñee ñooñu ànd nag moom booba ba ñëw sañ ci Darou Salaam ba ñëw sañ ci Touba ñenn ñi wàcce eh, eh, Darou Salaam ñenn wàcce Touba lii ma la wax sëñ Ba ne Cheikh moo ko nit li ci lamiñu boppam juróomi laaj yooyu nag. mooy laaj mooy mooy mooy laaj yooyu laaj yooyu ni ko ni ko sëñ Bara leerale bu nit lii Cheikh bi wax ba noppi moom day wax ni eh, ni ñu nekk fi sëriñ bu la ni ñu dëkk ni boo loo ko dem loolu leer la ndax ne kër kër kilifa goo gis ak li xóor di fa am ka dem du yóbbu dara kenn kenn woowu ko fa moo ko fay def hmm? toog fi moom leer na hmm? ne sëriñ motub sëriñ it du digal ab taalibe bi mukk ni ko yët ma nangam du fekk te fekkul ni daa gis ci baatin ni lii mu koy laaj yor na ko wala su ko yul bu ko wuti na ko am kon war a dikk naa ko ëmm. waaw nee na nee na yóbbu ëddiyaat mag ñooñu nee Cheikh Ibrahima ñeneen ak ñeneen yi deme ni ñoom da daan tudd sax ay tur naa ay sëñ ma Samba Diop Sam ay Cheikh Issa noonu ne eh, buñ daa yóbbu ëddiyee dañ yóbbu lépp duñ fa bàyyi dara duñ ko duñ ko xaaj. noon nag ni ko doon defee mooy maanaam masalan tey bu dongay tërbiye béye mbéy béye ba mbéy mi nag ñu dajale la ñuy dajale di ko yóbbu loolu waaye nekkul maanaam bis bu ne rek du dikk def noonu du loolu waaye boobu moo yóbbu addiya par fa ba dara lépp la lépp la ñu yóbbu hmm? tërbiye wu géet euh, noonu la ko waxee mu ne ko fanweeri at mu ne ko wàññi ñëw ba ci ba ci mu ñëw ba ci ba ci ñeenti at yooyu ne ci la ma suñ bi gërëm lu gudd la waaye xam nga loolu mu ñu ci duggee day dal di dama du mën a leeral lépp lépp lépp ndax li ma wax sax ni damaa ko mën a xam xëy na waaye damaa na jërëjëf jërëjëf euh, kon mbokk yi ñuy topp ba tey rek ñu ngi ak yéen fii ci jotaay bi nga xam ne moom lañ tuddee yoor yooru safar di dalal sëriñ Sidi moom sëñ Naar ñuy waxtaanee euh, sëriñ Bara Diène mi nga xam ne moo di taw taw euh, sëriñ Issa Diène mel na ne nag sëñ Bara dafa dekkalaat daara yi nga xam ne moom la sëñ Issa sancoon yam ci wala goraat na ay daara yi boppam ci wàllu tërbiya waaw moom xam nga Cheikh Sam lu lu bari la sënc daanaka bu ko seetee war na mat de dëkk sax boo tuut waa bari na ndax ay xabaan nag ndànd googu ba mu ñëwee fa mu dëkk Daaru Salaam la tudd xam nga Daaru la ñu waxee Daaru Salaam la ko tuddee ba mu fay dëkkit boobu taxaloo dëkk baa màgg ba taxaloo waaye taxaloon booba ba mu gàddaayee njànn bi mu jógee njànn bi mu jëbaloo ba si ñëw njànnarat jógee ndànd jógee njànnarat ñëw ndànd foofu la jëkk a sanc sëñ Saar na yeneen i barab yoo xam dafaa def ay daara mu yàgg ma tuxu dem Daaru Jann Xabaan foo yàgg na fa am na fa ay pénc jóge fa ñëw fi ñuy wax ngóolum fii ci gal ci boori eh, ginnaaw nu la ginnaaw saamu sëñ ma numbi amoon na fa dëkk mbooloo ba defa nekkan ay tool yu baree faam waaye tool yi man suux na ba fa jógee la ñëw Daaru Jann ngeen ngi neew foofu Daaru Salaam la ko tuddee daaru googu ba fa jógee la ñëw Njane la gan Njane la gan Daaru Salaam la ko tuddee Njane la loolu wax ju jëkk jaay rek xëy na tubaab bi daf ko ci kayit ni waaye moom li mu ko tuddee mooy Daaru Salaam mag ñi sax dañ daa wax noo ngi dem Daaru la wax ñoom ñenn lagan gan Daaru Salaam la tudd mooy turam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg li wër ñenn la gan lépp nag ay dëkkale yu bari fu ci sëncul ka ko sënc moo ko jox ndigal yaar doomam wala seexam yi magam ñooñu kenn ku ne sanc na fa ñenn lagan boo ko seet daanaka ni lagan boo seetee tund wi daanaka bor na bi xaw naa jigéen ñeent fukki kilomètre ndax boo génnee gusaas tuuti rek dal di koy dugg te amu na mbar ba dem Touba Ndiéndé ba dem Degeer eh, digaloo see gelongalu sëñ Mor Mbacke gelongal yaatu na dem ba sori na daal dëkk dëkk yu bari la ci dëkk yi mu sancal boppam nag moom ginnaaw bi moo sanc daare siidi waaw fi nga Touba Ndiéndé njumit foofu moo fa dem moo fa sanc ginnaaw bi eh, sëñ naar fekk ko foog ay njabootam ba am fa lu mat ñeenti dëkk wala juróom daal xanaa suuf si yaatu la am nañ fa suuf yooyu daal laa xam ci ay ay sañcam moom. ci wàllu tarbiya ginaaw jaar nga ci daara ji ndax daara yi sëñ baara nii daara mel léegi daara yi sëñ baara yomboon na wala ci wàllu tarbiya maanaam ca ni ni tarbiya wu cosaano rek ci ne leen tarbiya ci delloowaat nit ñi ci yàlla ak di leen ñaax ci liggéey ak di leen waar ci sëñ Tuubaa. waaw loolu daanaka def moom moom danaa def waxtu wu bu ñu demee ba cooroon nguru jot mu ñëw fa woolu dong yëpp loolu moom daana ko def dong tër bi yëpp ay heures yi daanaka wala lu gën a teel at tuuti. mu waxtaan ak ñoom daggi leen digal leen tere leen digal leen ñu góor góorgóorlu ci liggéey wax li ñuy war a wax leen yi ñu war a moytu yi nga xam ne day yàqal ab donga donga tërbiya mu di leen ko leeral bokk na ca loolu lim ci dégg daa gën a dangal mooy donga tërbiya dugg ci néegu jigéen waaw nee mel ni muusum ndox moo ba na bëgg koo sol ba mu fees ak ndox ne loolu day day day day tuuru hmm. mi mel ni nen boo mi ngi mel ni dax boo teg ci wetu taal da koy ruyal ne mënoo ko duy ba mu fees mukk mm-hmm. mm. loolu daana ko daana digle di digle ñu ñu ñuy soree di digle it góorgóorlu ci góorgóorlu ci liggéey rek mm-hmm. na mu ko xamee woon xam nga mbir yi nag mm, faaw changement am tuuti ba ba léegi ba léegi mm-hmm. waaye nag euh, ca jamonoom it wax dëgg yàlla lam ca lépp ci di di digle di ko tere ñu ngi ko doon def ñuy liggéey di jàmm yàlla ci mujj gi nag ci mujj ci mujjam moom ci mu jëm daa mujj digal dong ngay neen déedéet julli waaw dong nga tër waaye daawuñ julli waaye mujj gi nag daa digle ni déedéet julli dong nga tër yi waaye ci yéen bi daawuñ julli waaye man ndax man mi ma ci yi moom man boobu ma wàccee laal ji waaye dawuma julli waaye ci mujj gi nag at yi mu mujj yi nag ay juróom at wala juróom benn ñeent yi digle ni déedéet julli waaw jërëjëf jërëjëf euh, euh, sëñ Sidi euh, yaakaar naa ne waxtaan wi am na solo lool waaye damaa bëggoon ñëw nag ci lii nga xam ne moom lañ moom la ñuy mujj mooy màggalu Touba Eh, yan taxawaay la sëñ Baara amoon ci bis bu bi nga xam ne moom la sëñ waa woote na kaay leen sant la ma ci yàlla te yàlla dogal bi ko sëñ Fallou woote mu fekk ko fi ana yan taxawaay la ci sëñ Baara daan waaw moom itam taxawaay bu mat sëkk rek xam nga nekk Cheikh Issa Cheikh Issa ñeenti at la màggal si ñeent ci ayug sëñ Fallou ñaari màggal yi mi ngi ko màggale fii sëñ Murtala dëkk ànd ak soxna mu sëñ Sëriñ Tuubaa bi ko ñetteel la màggal fii ci njenn gii fi tuubaa booba li waral loolu bi mu defee ñaari màggal gu ñetteel ga daa yónni sëñ Baara ak sëñ Madou Fall Thialé ni ko dem leen ngeen doon wax Fallilu ni ko ne ma wutal sama barabu bopp moom sunu pencum njenn mii sëñ ko tànnal Cheikh Issa bi ñuy wax ko sëñ sëñ Fallou ni ko euh, sëñ bi kat moo ñu yónni ne da ba nga wutal ba nga ko barabu boppam ndax fee daa jege jumaa ji da koy bàyyeeg yéen. sëñ Fallu moo leen ni moo ni sëñ Baara ngeen tànnal ko wala ma tànnal ko sëñ Baara nee ni ma ni ko tànnal ko ne ma ne ko kon tànnal naa ko bépp texe waaw bépp texe mooy kër gii bépp gii nekk ci biir kër sëñ Tuubaa bii kër biir kër sëñ Baara gii bépp googu gii fi la ko sëñ Tuubaa bàyyi sëñ Tuubaa ñëw na fi ay yoon ñëw na fi ànd ak sëñ Bàkki Busu def na fi jàkka jàkka jooju bi mu ko fitee booba sancagul dëkk bi ay gan la woon mos nañuy def waxtaan di sëñ Baara sëñ Naar ne ma xam naa sax taarix bi waaye nag eh, sëñ Bàkki bu so li tëpp moom la ko sëñ bi nettali woon sëñ Tuubaa waxoon boole maa ngi Omar Kan Bàllaay sax boo giseen boo ko laaj dina la ko wax ñu ngeen dem sëñ Muxtaar Buso boobu mooy xëy sëñ Bàkki Buso ngeen laaj ko taarixu kër gi mu wax leen ko ba demee sëñ Muxtaar ni lool de sawar naa ci lool ndax ñi ko sëñ Bàkki Buso nettali woon maa fi des dal sëriñ bi nekk di wër Tuubaa am na ci jamono bi yoo xay day ànd ak sëñ Mbàkke di fa dem sëñ Mbàkke Buso mu mag ne benn bis nag mu ne ko damaa bëgg nga nattal ma fii nu toll ak bi gën demoon ak gëca gëca wàlla foofa wax ne ne mooy fi Daaru Manaan nekk tey xam nga Tuubaa ak Daaru Manaan hmm? waaye booy leeral faaw nga ni fa Daaru Manaan na boo fi jàkki Daaru Manaan di nekk nekk booba hmm. ne mu ko nantal nattal ma fii ak bi bi gën demoon maa ak yow ak bi gëca wàlla hmm. wax loolu sëñ Mbàkke sëñ ba wax ko loolu ne suñu Mbàkke di tàmbalee bàqara di jàng ñu yegg si ba ci bépp gii fii ci këru njenn gii tey nee la egg si jeexlu maayida tàmbali waxtu di tari bi muy egg fa bépp gii nga xay tey mooy fi Sëriñ Tuubaa tëdd fay jàng mi egg si waat fi bépp gii la egg si fa dafa damas naaw tàmbaliwaat fiy jàng mu yegg ca eh, fee tey fa jàkkee dóor naan ñu nekk mi ne dina ti fa naa bi jeex kaamil la fi jàng mooy xaajale bi sëriñ sëriñ bi wax ko ne ko ne natt nga mën kaa natt naa ko wax ko ni ci nattale ne sëñ bi def ne ko defal ma fi jàkk sëñ Muxtaar bu seen ni ma jàkka jooju moo fi jëkk moo jëkk jëkk ci Touba. waaw mooy gi fi mag dëpp googu yi sëriñ Touba ñëw na fi ay yoon ànd ak sëñ bu Bousso sëñ naar nag moo ma ni sëñ bi am na yoon fi ñëw def na fi ñetti fan ne ma sunu borom xamal ko ni ko nag barab bii nga nekk bu barkeel la waaye li ngay seet des ne dama jàll ca kanam moom soo ko jàll ci bib gee bi tàggoo googu sëñ Fallu wax it sëñ bi nee sëñ naar loolu moo ma ko wax ne am na jamono ci jamono jëkk yi sëñ Fallu buy tukki fi la jullee fajar ngir barkeelu si tàggatoo googu sëriñ Tuubaa dem na ñu bari si mag ñi bu dee sëñ bi ba fi googu mu ñaanal leen fi fi jàkka ji mu ñaanal leen fi kon foofu Cheikh Issa menn at la fi màggal waaye ba mu fi màggal booba xam nga jamono melut nii te lu ñëw sàkket kër gi li ñu dóor góor dóor gi defari benn néeg mu màggal fi ñu dem yàlla mu wàcc bi liggéey bi wàcc bi liggéey nag ginnaaw bi nag moo jox sëñ Baara gi Hmm? bind ci loxoom wax ni kër gi léegi moom ma nee na ko suñ baar dana mos naa la woon kër woowu sax xanaa hmm. boo firee la mu wax daa wax ni bismillaahi rahmaani rahiim yi loolu tax waroon naa ko leer bu yàgg kër gi nekk diggante ma naan ak Touba sëñ Fallu ni ci ndigalu Serigne Touba Cheikhul Khadim mooma lañ ko moomale nañ ko Mouhamadou Lamine Diène ci moomeel goo xay dootu suppi ku mukk déedéet déedéet wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi wasalaam tabi noonu noonu noonu la ko bijee def ca signature am ak tampom looloo tax sëñ Bara lif kër gi tey waaye Cheikh Issa la jëmmi pàkk bi ca bu njëkk moo doon pàkkam fi la màggale màggal googu fi la sëñ Bara wéy nag di ko fi màggale ba nu ëgsi fii nu ëgsi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu euh, moom sëñ Naar <laughs> yaakaar naa ne euh, bari na lu di di nettali ci kër sëñ Issa Diène ci sa yow la ko déggee te it euh, li ëpp solo ci waxtaan mooy jukki la ci am njëriñ nga wax ko. te it nangu dëgg ndax lépp looy wax danga nga naan sëñ baara nee na ma wala sëñ naar nee na wala mbind maa ngi nii te loolu eh, delluwaay boo xam ne benn gën na ko wér amut loolu kon eh, yaakaar naa ne eh, tey jii lañ masa toog nga waxtaanee sëñ baara waxtaan wu yaatoo nii waaye luñ lépp lu mas a wax sëñ baara la nga koy delluwaat sëñ Isaa te fekk na sëñ baara di mbër moo xamante ne bii fa kudd ga daan ga doon tibbal sëñ Isaa daal loxo ba ko téye woon moo yoraat ku duggoo ko tibbal ci sëñ Baara mu boole ko ñaag eh, tib nga xam ne jëlee na ko ci sëriñ Issa Diène kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla na toogaay bi yàgg lool te lépp ànd ko wér di ñaa rak ñaanal sa rakk yi topp sa ak taalibe yëpp suñu borom di dolli seen tawfeex ak seen taysiir bis bi ñu dëgmal it yàlla nañ ci àgg ci bisimilah rahmaani rahiim weesu ko ci alhamdulilah rabil alamin yaakaar naa ne bu ñu nangoonee sëriñ Baara Diène moom la sëñ Fallou wax na ko ñeen fukki roo yu àndandoo benn yoon di dund yaama ko njëkk a jébbal ren nga jébbal sëñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ñaar téeméer ak ñeen fukk day mel ne ñeen fukk ya sëñ baara defoon tegal nga ko ci ñaar téeméer ru jébbal ko ko loolu yaakaar naa ne e, yokkute la looloo taxoon sëñ Tuubaa naan samay mbir lu mujj ñëw ëpp doole la wéyoon te e, loolu firndeel nga ko loolu yàlla na yàgg lool te ànd ak wér ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanalit nag liggéey bu réy bii nga xam ne moom nga sumb ci ndigalul sëñ Tuubaa muy ndigal li sëñ sii di Muxtaar mujj joxe ci àdduna sëñ Muntaxaa njëkk koo yeesal ci ab ab jataayam muy e, fii nga xam ne fi lañ fas yéene di defee waxtaani màggaluk tubaa nga ne ci liggéey boobu yàlla nga ko àggale jébbale caabal yi caabi ji àggalewaat yeneen nag naalaat yeneen àggale ko jébbal ko Serigne tubaa te lépp ñu ànd ko ci barke Cheikhul Khadim ñoo ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.